Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakaatu waa mbala ñet doom ñett ko doon laaj ci wàllu leel kawraw yooyu di rus lel bokk la nag karaw yi siti ma karaw yoon ndoxu city yo ko dem ko dagg di ki di rus way karaw lele muy déyim doon di leer nañ kanam gi leer nañ nak dana dal gor dana lal jigen jigen na ko doon laaj sax nak xamna le moy lal gor góor mo gëna bari sa boobu waaye terewul am na soxna yenn soxna yoo xam ne daa leen laal comme soxna soosu doon ko laaj leel nag dafa bëri na yu mooy it yu koy sabab li ci gën a bëri nag da nga gis ndono ñoo xam ne leen topp waaw famille boo xam ne loolu daan leen yëpp loolu boo ko xoolee da nga koy gis te bi dana ko def faas yi da koy def ba ci bopp bi yooyu yëpp da nga gis muy dëñ di seet wecc dootoo ji gis dara loolu day am am na ñoo xamne jafé jafé seen walu hormone nana bu dee goor ak jigen ñoo ci am ñoom ñëpp mën na leen dal am na yeen xéti jafé jafé ci walu hormone yi so amé rek légui loolu da nga gis légui seen karaw yu di deñ ñuy leel non surtout ci jëbi non am na ñoo xamne sax tawat comme tawat suukar yi ñoo koy def su ñu tawat suukar rek man na leen koy def surtout bu rek lewul loolu man na leen a légui léegi ñuy leel non am na ñoo xamne jafé jafé la ñoom ci walu thyroïde mooy jafe-jafe wàllu guwaatar yooyu wala mën na indi mandargaam yi bokk na ci mandargaam yi di leel di karaw boobu wala sax manqué ay vitamine am na vitamine yoo xam ne tey su fekkee léegi yaramam da ko manqué mën na ko yóbbee nga xam ne du feebar du dara yaramam moo amul vitamine yu mat dana koy def yenn xeeti ferñeent yi da koy def surtout lu mel ne seng waaw ferñeent boo ñëwee seng su ko nit ki manke man na ko yóbbee noonu karaw gi dañ noonu di set wecc wala sax mu am jafe-jafe wàllu dret nga xam ne dret ji ni may dawee moo normal surtout foofu nga xam ne ci bopp bi dret ji du fi yegsi noonu fi war a yegsi dëgg dëgg ba nag loolu mën na indi jafe-jafe nga gis karaw gi ruus noonu waaw li ma wax bu dee ci jigéen jigéen nag moom bu dee soxna nag moom li ci gën a bëri jafe-jafe wala ndono doon wala famille wala sax mu nekk ci comme ni may dundee dund bu normal noonu surtout ñi nga xam ne tey bu ñu demee ba tollu ci jigéen la gën a bari su demee ba toll ci quarante ans jëm juróom fukk foofu muy def mën a ménopause da gis ñu bëri loolu dinañ leen foofu noonu ci yenn xeeti ferñeent yu bare bëri yoo xam ne dañ koy wàññi dañ koy manqué ndax jafe dund bi ak seen yaram ni muy soppeekoo noonu loolu dañ koy gis noonu waaye souvent suñu jëfandikoo yiñ kii rek mën naa dañ surtout nag bu wàllu mel ne carotte carotte mu di ko jëfandikoo comme koombar baax na trop bu dee soxna. wala doomu naajo yi naajo doomam yu sew yooyu même naajo ci boppam mu de ko lekk wala mu di ko def jus di ko naan lu ko gën ci moom soxna suusu bariwul waaw ndax ferñeent yu bare bari du ànd ak moom kon yooyu na ci yi nga xam ne dañuy tax di leelit mu mooy loolu dund gu dëppoo la wér gu li moom nag comme ñoo xam ne li mooy lekkit lekk gu dëppoo la wér gu amul vitamine amul ay ferñeent su ne ba mara yaram manqué ko dana am yëg-yëgat muy feeñe noonu nga gis léegi muy leel noonu wala xeeti infection yi mooy tawat yooyu nga xam ne dañuy wàlle yooyu mën nañ koy def yëpp gis nga ko ay sabab la yoo xam ne mën na tax karaw googu di ruus lu bokk la sax sax comme siti garab tawat siti yooyu nga xam ne tey moom demeewul noonu ndax moom karaw gi mën a dañ noonu mais du leer nañ ñu noonu eh, day kii noor da ngay gis ne muy ñàkk karaw toujours lu mu def def def waaye du tax karaw gi lu dara mais leer ba moy karaw yi deñ set wécc su nga defee na yi ci bax baax na lu bare bari baax na ci ma ngi daanañ nga faje yu bare bari waaw gis nga laaj laaj bi lu ko ci gën wul am bo démé bu ñu rayaan ab gatt bu mag nak gis nga yokku gi loolu noonu nekk ci biir biir yaxi yi nga génne ko diw lay don danaka boko ko diw lay don yokugo nga am ko debbu laaj ba makko nga jaxase ko mom diko ci diw lolu mom lu gaaw la ci lawat ko su fekke na xeti jefe jefe la mom fofu jafé jowe karaw yoy su ko ci diw yalla mën na def tawfi ba leer ba mën na del ci wat nga guyab bi xobi guyab it baxna ci top su tangat baxal ko ñor kan ci lu yem baal mom ñor nga segg legi diko naan barkas te diko ci raxase diko raxase fofu mu tam soo ko ab dir suñu borom mën na defal tawfiix lemit baax na ci surta nga boole lem ak soble lem ak soble waaw lem ak soble presse tëj presse soble bi ba am ci ndox nga jaxas ko ak lem su ko defee di ko ci diw foofu diir su ko defee nga raxas loolu yëpp lu ko ci gën bëri naa dem ba leel boobu saxaat bu dee lu mel ne que léegi koko surtout diwu koko bi diw ko ko moom itam boo ko amee boole ko ndoxu limon nga am diw ko ko boole ko ak ndoxu limon wala nga am ndoxum ko mi ci boppam waaw surtout ndoxum koko moom boole ko tuuti limon ba ci limon léegi di ko ko raxasi waaw toogal si loxo diw ko ci bam ki nga bàyyi ku noonu loolu itam moom itam dañ ko koy fajee ba ba loolu dañ. saabu xabatu sawda bii diwam gi baax na ci saabu bi nag moom mooy ci gën ndax gis naa ñu bare bari ñoo xam ne te woon seen karaw yi dafa sama bopp yi dafa leeroon noonu waaye saabu abatu sawda bi moo ko dindi waaw abatu sawda am na saabu buñ ciy liggéey di ko jaay boo ko koy raxasee yàlla mën naa def taw fee ba loolu dana dañ loolu moom gis naa ko ay yoon yoo xam ne gis naa xale boo xam ne bi mu juddoo judduwul karaw daara juddoo ko loolu def na ay at saxul karaw waaye saabu boobu biñ ko diggalee borom ba mu ko jëlee di ko raxasee bopp bi ci la mujj karaw gi mel na meloon sax sax kéemaan la moo tax diwam gi it baax na même diw abati sawda gi boo ko booleeg lem xam naa koo xam ne demoon na loolu karaw gi dafa dañoon ba jeex moom itam waaye bi mu saabu abati kon diw abati sawda boobu lañ am ak lem ak olive diw olive jaxase leen mu de ko diw buy tëdd ci mu diw ko ci karaw gi bi tëdd moom itam ba mu ko defee ab diir la ko suñu borom defal toofe ba loolu dellusiwaat gis nga lem bo limang bi boko lo pacce doomam bi doomam yu sew yi ci bir nga bolé ko power dëbb ko def ko sunguf mom itam bolé ko ak karatu diko ci diw mom itam lu ci bax la trop so koy def sun borom man na def tawfi ba lolu yalla man na ko ci dimbalé ba mu da del ci wat ak yeneen ak yeneen ak yeneen sax yu bare bare yo xam ba ci gis nga fenn bi ñu doon wax bu ko amé mom itam diw bi di ko diw foofu noonu yàlla mën na koy defal tawféex gis nga bisaab bu xonq bi it kazaalik surtout bisaab bu xonq bi mu dëbb ko ba mokk boole ko limon ndoxu limon rawatina mu dolli ci mu am ndoxu ko ko it boole ko moom bisaab bu xonq ak ndoxu ko ko ak ndoxu limon tuuti jaxase leen moom itam léegi di ko diw ci foofu karaw fi karaw bëgg maam karaw yàlla mën na koy defal tawféex ba jafe-jafe yooyu maamoon dana ak yeneen ak yeneen sax am na ñax am na ñax gu ñëwoon ndijji bopp ndijji bopp ñax googu moom itam su fekkee doo bëgg karaw gi génn moom itam moom it ko amee tuuti waaye lu yem lu yem nga ba loxoom loolu ngëb ngëb ci nga ba loxoom rek mu baax la ko ci litre ndox mu segg ko léegi di ko naan par benn kaas su fekkee jafe-jafe deret ji la woon nga xam ne tey moo taxoon léegi deret ji du yegg fu mu war yegg ba léegi mu am loolu su koy defal su borom mën na koy defal tawfeex ba loolu day saafara ak yeneen sax yu bare bari yeneen xeeti far ñeent yu bare bari wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jëlee di ko raxasee bopp bi ci la karaw gi mel na meloon sax sax kéemaan la moo tax diwam gi it baax na même diw abati sawdaa gi boo ko du booleeg lem xam naa koo xam ne demoon na loolu karaw gi dafa dëñoon ba jeex waaye bi mu saa baabatu kon diw abati sawdaa boobu la am ak lem ak olif diw olif jaxase leen mu de ko diw buy mu diw ko ci karaw gi bopp bi tëdd moom itam ba mu ko defee ab diir la ko sun borom defal toofe ba loolu del siwaat gis nga lem limon bo limon bi boo ko lu pàccee doomam doomam yu sew yi ci biir nga boole ko powar dubu ko def ko sunguf moom itam boole ko ak karatu di ko ci diw moom itam lu ci baax la trop soo koy def sun borom mën naa def tawfee ba loolu yàlla mën na ko ci dimbale ba mu delsiwaat ak yeneen ak yeneen ak yeneen sax yu bare bari yoo xam ne ba ci gis nga fenegré bi ñu doon wax boo ko amee moom itam diw bi di ko diw foofu noonu yàlla mën na koy defal tawféex gis nga bisaab bu xonq bi it kazaalik surtout bu xonq bi mu dëbb ko ba mokk boole ko limon ndoxu limon rawatina mu dolli ci mu am ndoxu ko ko it boole ko moom bisaab bu xonq ak ndoxu ko ko ak ndoxu limon tuuti jaxase leen moom itam léegi di ko diw ci foofu karaw fi karaw bëgg maam karaw yàlla mën na koy defal tawfeex ba jafe-jafe yooyu maamoon dana dañ ak yeneen ak yeneen sax am na ñax am na ñax gu ñëw ndijji bopp ndijji bopp ñax googu moom itam bu fekkee doo bëgg karaw gi génn moom itam moom it bu ko amee tuuti waaye lu yem lu yem nga ba loxoom ngëb ci nga ba loxoom rek mu baaxal ko ci litre ndox moom seen mu segg ko léegi di ko naan par benn kaas su fekkee jafe-jafe deret ji la woon nga xam ne tey moo taxoon léegi deret ji du yegg fu mu war a ba léegi mu am loolu su koy defal su borom mën na koy defal tawfeex ba loolu day saafara ak yeneen sax yu bare bari yeneen xeeti far ñeent yu bare bari wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa